ñëwal jébbale sab liggéey. salaamaaleykum yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu nuyoo sunu yaakaari tey ak ëllëg muy sëñ Abdou Karim Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Fadal di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi lool te wér sëñ Abo mi nga xam si ne mooy buntam moom mu yàgg fi lool te wér ñun sunu kàddu du ci bëri ndax bu xasee ñëw ci sëriñ bi rek amatuñ amatuñ kàddu. ndax dañoo am tuuti rek luñ ciy leeral waaye du kàddu yoo xam si suñ jëmma ko tax a jóg sax soxna aadame jamonoy weeru safar dañoo fekk corniche jox ñu benn kaadar nañu ñu indil ko joxal ko sëñ Abdou Karim boobu ba nga ni si yàgg na waaye mu ne nañ di bàyyi ba jébbale ba nga leeral ko sëriñ bi mu xam ne kaadar bi maa ko jox sëñ Fallou bi maa ko jox li ci des mooy ñi nga xam si ne moom ñoom lañ àndaloon liggéey bi di ko liggéey lu demee ne dayra whatsapp bi Serigne Bada Diop jiite ko lu de mel ne dayra corniche bi Serigne Modou Ndiaye jiite ko ak sëriñ Ahmed Diaw ak soxna yaa ummi ñang ak soxna maam jaarataay ñoo njiit yi dayra marché occas bi Serigne Ablaye Gueye ak soxna Ndate Fall ba tey soxna sëñ amet ma nga ca bokk jiite waate ko loolu lañ doon leeral sëriñ bi rek waaye ñun amuñu kàddu goo xam ci ne dañ ko yëkkati di ko wax sëñ bi ndax ñun suñ lépp sëñ bi xam na ñun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 sant la gërëm la ku bëgg a raw tënku ci dëggal buntu gaaw waa ngi nii tënk na njariñu àdduna ki laaxira a axlaax yi amul kenn ko mën a ñàkk ba noppi tekki leen la fa suñu borom bépp yonent bi fi mës a jaar de mooy la fi indi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 ngay wax lu ñu naan acam mosoo ko fee jëfit te du am ñun fu ñu doxee dañuy siggee ko sant sëriñ fallu te yaa ko waral surtout sëriñ Touba nga doomi sëriñ fallu lii doy na ndam sa tànk ci kaw fa yàlla ak dundal sunu national lii képp la ñor jërëjëfe yaa cheikhuna abdoul karim mbëru mbëri yaa cheikhuna abdoul karim ub um nga lambi soodaan ak bii daan mbàkke yaay ndaanaan mu jëntalu buntu way texe yi mbàkke yaay kéemaan defar nga mag defar ndaw def ci ñoom lu dul dañ defar nga sax ñi ñëwoon ñi dootu ñu mës a baax ci ku yàlla defar yow de dootoo dëng cheikh abdoul karim mbàkke yaa di tànneef naxoo ñu mukk mbàkke tey jayoo ngir da ngaa a bu doon ni mbubb la mbaa dàll bu ñuy sol ci jamono jii ñu ne kon mën a këru diine ko moo nàmp ñaari mee di gar ñaari mee di gor mooy Serigne Touba tey ci àdduna kookee kookee moo demoon jaay ak njuréelam fii jëndi ko ak taalibe Jolof sëñ Fallou am dégg Serigne Touba dégg koo xam ne néew na ma gis ku am dégg bu mel noonu ba Serigne Touba xewee ba léegi ndax ba Sëriñ Tuubaa waxee waxam ja ku ànd man ci lii ma nekk may sa baay wala may sa nijaay wala may sa mag sëñ Fall ne dama xam ne nag sëñ Modou Soula génn nañu sëñ te néewal seen i kàddu loolu la maam Seex Ibrahima Mbengue mi ne dara wax wàll nga ko ci siiñ yi muy toppatoo mbooloo. ñii moo àndal ñoom seet ñii am ñoom Mamour Gueye ne ñii Mamour Gueye Mamour Gueye ak Mamour Karim Mamour Gueye moom saa yu indee fii ay kanti dañ ñëw ne man ci dugg damay xam ne sa ndam rek sa ndam gis naa ne ku bëgg sa sa sa ndam la ku yi na dafa may xettal si yëpp Karim te te ba leen xettal si yëpp Karim yor weneen melokaay ko du leen mooy kon bu ñëwee topp la nii ñu toppee kon seen tere rek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 kon kon bu boobaa day mel ni du sa jikko day mel ni man nga wormaal rek nii nga ma ko defale daal koo gisati balaa dara xew de ko maasal di ko defal ñépp nee na loolu yi laa leen bëgg a wax kuy dem ndindi gi ak a ñëw foo mën a dem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 ci rajo bi ñuy wax Bennoo sëñ Mor mi ko moom moo ko jël si woon nga xam ni tey jii te loolu kat yomb naa xam koo xam ne buñ bindoon sëriñ Fallu Mbàkke leetar fii ci jamono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 nga boole ci ne man xam naa dem fa dana xaw a jafe ci man waaye danaa fexe ba xam fi mu toll ma féete la fa safay loxo ñaan li ma bëgg <laughs> nee na fii kër gi féete <laughs> sëriñ bi nee fi muy toog bi si fii la toog waaye xam na ko <laughs> nee na bu ma fi jubloo jël samay tàll loxo tàllal jëme ci moom dana ma yomb lool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 ku bëgg a raw tënku ci dëggal buntu gaaw waa ngi nii tënk na njariñu àdduna ki laaxira makaarimul axlaax yi amul kenn ko mën a ñàkk ba noppi tekki leen la fa suñu borom bépp yonent bi fi mës a jaar mooy la fi indi woon rawatina gën gi mbindeef Seyduna Muhammad ba ñu ko tagge woon bismil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci